الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له wa salawaatullahi wa taslimaatuhu ala afdali xalqihi mawlaana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man walaahu ila yawmi ddin wa radiyallahu an cheikhina ahmad attijaani wa an saa'iri muqaddami wa xulafaa'ihi wa radiyallahu an cheikhina alxaaj malik wa an saa'iri xulafaa'i wa abnaa'ihi ridwaanullahi alayhim ajmaciin wa anna bihim wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullah ginnaaw gu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala ci làmmeñ yoo xam ne dafa lotte ci cant gi ñaan ko mu julil ñu ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdalu xalqillah ñaan ko mu gërëmal ñu suñu wasila ci yàlla ak njabootam yépp muy saydi cheikh ahmed tiyaani ak suñu xalifa cheikh alxaj malik radiallahu anhu ñu ngi nekkoon ci téere bi nga xam ne sëriñ bi ci la toll woon muy téere bi ñuy wax mam xulub maam cheikh malik taalif ko di ci jàjj bakkan yi pour nit ku nekk bàyyi xel ci boppam euh, toll woon nag ci yow mi nga xam ne danga am xam-xam di ko jàngale li gënoon mooy na nga fexe li ngay jàngale yow nga jëm koo jëfe hmm. <clears throat> mu wax ne afi kulli yawmin ta'muru nnaasa naasiyan li nafsaka daa aarun alayka ya'ibu yaa ngi wër rek bés bu jot di jàngale di waaraate afi kulli yawmin ndax bés bu jot ta'muru naasa da ngay digal nit ñi ba pare naasiyan xaal la mbir mu ngay fàttewaale li nafsika sa bopp loolu sondel mooy def loolu bul def loolu ja loolu aarun gàcce la alayka ci yow ya'ibu da lay sikkal hmm. wa in ankaxta ndem danga sëyloo <clears throat> amalan jëf nga sëyloo ka ilman eh, xam-xam tana sala ngirtere bi mulkin ci nguur mu daamin gu sax boo xam lay sa fi du am xare nguur goo gis borom xam-xam dañuy wax ne nguur goo gis dereeti baadoole yi mm. ñoo koy siim ak seeni rongoñ hmm. kon nguur goo gis danger la hmm. nguur goo gis rek ñu ne pale baa ngi nele bu laaj ñaata litre yi deret mu tuuru pour nguur am dafa fekk nag yow man nga ko bañ a fekke réew mi gën a rëy ci àdduna bi fii ñu toll mooy États-Unis révolution ba fa am la fa dee kenn xamul mu toll pour loolu taxaw nii feneen noonu feneen noonu waaw man nag si xaj maa maa lay digal nguur goo xam ne du am xare da ngay rek doon buur te doo am opposant xare du taxaw mooy lan lii nga xam ni jëm jéem koo jëfe mbaax mbax yi nga xam jéem koo jëfe yàlla dana la fal nga doon buur te doo am dak doo am mbooloo hmm. neex naa gëm parce que bés bu jot nga dégg ñu ne këru diine yi këru diine yi foo ci dem ay buur ngay gis euh, te ñoom gisoo benn garde du corps bu ñu amee hmm. nit ñi dañ leen di bëgg lool fekk yàlla moo ko def ci ñoom ndax yonent yàlla Muhammad moo ne Jibril moo ne borom bi subhaanahu wa bu demee ba bég ci jàmm day woolu Jibril ñu ko Jibril bég naa ci diw bëgg naa ko na ko bëgg Jibril bëgg ko ne woote ci malaaka yi ne yàlla nee na bëgg na diw bëgg leen ko yéen malaaka yi malaaka yi bëgg ko yeneen bi nee na wa fil ardi ñu defal ko ci suuf xabul nangu ñëpp koy accepté même ñi mbokkul diine sax dañ koy bëgg doy na ci rek Cheikh Al Hajj Abbas radiallahu anhu mm-hmm. ñi gëmul yàlla sax dañ ko defoon seen sëriñ sopp ko mm-hmm. yàlla bu soppee ñëpp lay sopp ren ci loolu seen coobare wa illaa boo jéemul a jëfe nag li nga xam euh, maa ngi lay yëgal ni njariñ li bareetul ndax fa inna nax la tàndarma garabu tàndarma ay shajaratu loolu loolu la xasaf shajaratu naxl laysat bi naafiin mënta bari njariñ ida lam yakun ndem nekkul fiihaa ci garab gi athimaara meññent yoo xam tatibu yu neex la garabu tàndarma dafa doon garab yi nga xam kenn du ci kerlu ndax moom mu ngi dafa ne tëx ca kaw te barewul barewul ay branche mm-hmm. kon loolu la wutee garabu koko garabu koko branche yi dafa dafa lëw nga mën a toog ci suuf sax li muy njool njool xaw nga cee mën a kerlu tàndarma nag dafa gàtt garab yi branche yi léegi kon lenn rek lañ ko mën a jariñe lañ koy jariñe moom mu am meññante bu neex waa bu ko faful am nag goral garab gi. Hmm. goral garab nga dem xambi ko parce que amatul njariñ mooy tàndarma jooju lay niiraleeg borom xam-xam bu bari lool ay téere te jëfewul la mu xam mooy amul meññeent. aleykum maa ngi lay dénk a tuqaa ragal yàlla kooku nag borom xam-xam ak kul borom xam-xam ne yëpp ndax indal xuyóora yiw yi yëpp am boole seen bi nee mboole seen mm-hmm. tadammanaha moom ragal yàlla moo ko làmb mm-hmm. mu ne nag ina taqiya ku ragal yàlla najibu ku tedd la booy wër ku tedd du borom maam yu borom baax yi du borom e, yax bu rëy bi ki ragal yàlla mooy ki tedd e, ndax yàlla nee na inna akramakum inda allahi atqaakum moom la bi junjunoon nit nag booñ la laajoon lan mooy ragal yàlla ak fan mooy ragal yàlla ci sa jëmm doo mën a xam ban cir la maanaam cir yëpp ñooy dajeendoo ragal yàlla ñu tudde nit ki ci boppam ne dafa ragal yàlla <coughs> nit dafa am ay loxo loxo bés buy jël lu moomul jëmm ja ragalul yàlla tànk bés buy dox lu neexul yàlla jëmm ja ragatul yàlla gémmiñ buy wax lu neexul yàlla jëma jën ragalul yàlla kon ndekete ensemble la ñëppay defandoo liñ leen sant ragal yàlla di soog a am mm-hmm. waaye ragal yàlla firiwul ragal bii ñu xam ñun ci nit ñi ñu ne la a ah, takka der baa ngi ñëw ngay lox loolu ak ragal la waaye tuddul ragal yàlla parce que yàlla kenn du ko ragalee noonu moom doonul benn gendarme booy loxal moo tax sëriñ bi ne raayaak say càmm téef say càmm téef mooy say cif say cër uh-huh. nit ku nekk cër yi la yàlla jox dañ la ko sàmmaloo comme ni eh, sàmm bi di jiitalee ay nagam di leen sàmm yow it yi noonu lañ la ko sàmmaloo bët yi bu ci xool lu xaram tànk yi bu ci dox lu xaram loxo yi bu ci jël lu xaram yow ñu sàmmaloo la ko léegi te sàmm boo gis dafa war a yor yat pour sàmm ko ay juróom ñu ne nag ragal yàlla mooy yat wi nga xam ne moom ngay sàmme say cër bu tànk bi bëggee doxlu lu dul kii yatu ragal yàlla dóor ko ne ragalal yàlla bàyyi li bu loxo bi bëggee jël alalu jàmbur ragal yàlla bi dóor ko ne ko teg ko fi moomoo ko ndekete kon nit conscience am rek moo ko mën a waar waaye waar nit ak wàcc kaamil yooyu yëpp amul njëriñ jox ko ay son muy déglu yooyu yëpp daf dimbali rek waaye ragal yàlla ci xol lay nekk ndax am na ñoo xam ne ci daara ja lañ dëkk te lu ne la lu bon lu ne ñoo koy def <laughs> te fa la xam-xam ne kon raayaaka say càmm téef muy cër yi fatrut nanga ko dàq an maxaarimi rabbina wulis yi yàlla xaramal bi min saati taqwan ci yatu ragal yàlla bu ko defee boo ko defee rek yej ji min ka dina la fay mu jibu yàlla mi uyu yàlla dina la fay hmm. ala inna xayra zaad yi maa ngi lay waatal ne la yóbbal yëpp taqwa ilahina bi ci gën mooy ragal yàlla loolu nag alquran la hmm. yàlla dafa ne fa tazawadu fa inna xayra zaadi at taqwa luxatan wa maanan yéen ñi aji ji fa tazawadu na ngeen yóbbal ndax waa yaman dañ tàmmoon buñ daan aji ji loxoy neen la ñuy demee yàlla na déedéet nag bu leen demee loxoy nen di dem di sonal nit ñi fa te zawadu na yóbbalu boo leen di aji ji ndax yaman dafa jege torop torop torop màkk ñu ne jaru ko di dem ak loxoy nen bu ñu demee nit ñi fi nit ñi dal ñuy dem di bokk ak ñoom seeni ñam waaw yóbbal boo xam ne yow ci sa bopp nga ko nattoon boo amee geneen gan gu ñëw ci yow bëgg dundandoo ak yow yóbbal boobu bu jëmoon weer dina fa yegg yàlla ne kon fa tazawadu yéen waa yaman na ngeen yóbbalu ndax fa inda xayra zaadi ngeen ji yóbbal at taqwa mooy wegu fegu ba doo laaj kenn dara loolu lay firi mooy luxatan taqwa mooy fegu ba doo laaj kenn dara ñu jóge ci waqaayiq yi wiqaayatan kon na ngeen fegu ba bu laaj kenn dara waaye maanan bi itam mooy tazawadu na ngeen yóbbaloo yéen ñi aji ji ragal yàlla yéen eh, na ngeen yóbbaloo eh, na ngeen jikko yu rafet ndax fa inna xayra zaadi gën ji yóbbal bu ñu yóbbu ci aj du lu ñuy lekk at taqwa mooy ragal yàlla ci aj gi bu fa tooñ kenn fa man xajja eh, fala rafasa wala fusuq wala jidaala fi lxajji wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa kon sëriñ bi loolu lay way ne ala ma ne inna xayra zaad yi ngeen ji yóbbal laa wax taqwa ilaahi naa mooy ragal yàlla nga wekk sa bopp fekk sa bopp ba doo def lu yàlla xaraamal wala taxsha bul ragal nag taqwa ak xasiyatu la lay firil wala taxsha bu dee ragal kese kese kese ragal nit bul ragal xayrallaahi ku dul ndax foofu moom xasibu doy na ragal moom kenn rek doy na ci mooy yàlla ku ne xam ne ne góor sax kuñ ne woon kii daal góor la waaye ni mu ragalee defe naa du tàgg de aw xas la góor buñ koy tàgg ci ci ragal dëgg-dëgg ñu ngi koy xas hmm. mu ne kon yow góor nga bul ragal ku dul yàlla ñi ci des lu dul yàlla nen la te ragal gii ñuy ragal sax keneen ku dul yàlla moo tax mënuñoo xam ne yàlla doy na ndax wala laa sukunul aalamina li xayrihi hmm. ra'ahu iyaanan wal ilaahu qaribu yàlla mi ngay wër naan fu mu ne fu mu ne xanaa xamoo programme yi nga am yudul moom moo tax noo xam fi mu ne tàggoowul ak yow jàmm bi bés bu dégg jot mu dégg ñu ne yàlla qaribun dafa jege mais kooku jege anamu pourtant bi nga tëddee sa lal moo la gën a jege matelas bi nga tëdd bi nga sujootee moo la gën a jege der bi nga sujootee wala sajaada gi bi ngay dox moo la gën a jege sa yére maanaam moom daal ci waxin mu ngi ci sa lépp mais yëgoo ko gisoo ko xam nga lu la ko teree yëg lu la ko teree gis danga nekk ci beneen programme bu dul bosam wallahi benn nitu yàlla dafa wax ne <clears throat> dafay waxtaan ak benn waay mu ne ko xam naa ne yàlla moom moom ñëpp mais wóor na ma ne yéen moom gim moom moo gën a dëggu gi mu moom ñi ci des mu ne ko luy loolu mu ne ko ndax yàlla moo santaane yéen ngeen di ci xëy di ci gontu ba guddi ngeen tëdd ak moom hmm. mu sant ñeneen ñu xëy foñ ko di doxi seeni soxla ba guddi tëdd ñaar ñooñ nag bu jege di am am na ñu mu war a gën a jege hmm. kooku ne ko wax nga dëgg moo tax mu ne ala wala ne axli walaw laa bu dul woon daluk nit ñi dal gi ñuy dal li xeyri ci lu dul yàlla di ci dal di ci yëngu ay sukun wa xaraka di yëngu ci lu yàlla di dal ci lu dul yàlla <clears throat> kon raaw diñ gis yàlla iyaanan face à face jëhratan ndax war ilaahu yàlla alaaj maay mën nañ gis yàlla mu ne a ah, war ilaahu yàlla xaribu jege na la gis gi moo am ay firin waaye ala kulli xaalin daal bu dul woon yittewoo gi ñuy yittewoo leneen lu yàlla ñu jànoo moom face à face wala Seydi Ahmed Tijaani moo ko xanaa xamoo yittewoo yi ngay yittewoo yi dul yàlla ay xijaab doonaat ci yow ndax loo yittewoo euh, lu dul yàlla loolu day mujj doonaat kiiraay sa digganteek sa borom ci waxin nga gën ko sori mais du sori place du sori espace déedéet sori spiritualité la waaye yàlla kenn soriw mu ngi janoog ñëpp euh, léegi dafa am ku ñuy wax xandala xandala benn saxaabi la ibnu abi amir arrahib alfasiq xandala dafa ñëw ci yent yàlla muhammad di joy yooyu yu metti ne ko lan la mu ne ko naafaqa xandala man ndekete naafiq la yow yaadoon doon wax naafiq yi naafiq yi waaye man xool naa ci sama bopp ba yëg ne naafiq la mu ne ko luy loolu mu ne ko waaw parce que dama nekk yow ngay firi ci di wax ci yàlla di wax ci yàlla ba ma jooy yëg loo xam ne mosuma ko yëg ma génn dem sama kër toog euh, di euh, nekk ak samay doom wala soxna yi di waxtaan ak ñoom ba yàgg xaal ba dañ ma commencé di xaxataay di ree te ba yàgg ma tiit ndax yàlla moo wax ne naafeq mooy ku yor ñaari melokaan tey mu mel ni suuf mu mel ni léegi nag man ma xool sama bopp ma ne man kon am naa ñaari melokaan parce que bi ma ñëwee ci yow déglu naa yëg loo xam ne dem naa ba jooy ma ñëw sama kër nekk fi di kulee bay xaxataay ak ree kon ñaari melokaan la wala moom dégginam boobu mu jooy ne moom naafeq la génn dajeeg Abubakar Siddiq mu ne ko foo jëm ci naaj wu tàng wi mu nettali ko lii mu ne ko wa ana kazalik abubakar baax mu ne ko pourtant lii la dal teg teg man looloo may dal foo jëm nii mu ne ko ci bi laa jëm laaj ko mu ne ko doom fi bàyyi moom abubakar mi nga xam ku dul yonent moo la gën mu ne ko noonu laa mel dinaay toog ci yonent bi mu wax ba pare ma jooy ma ñëw sama kër waxtaan a njaboot gi ree kon ñaari la nañ dem ñu jiit leen te ñëw ci yonent ci yonent bi déglu leen ba àggal ree ne Hanzala doon naafiq Abubakar doon naafiq yéen taxuleen ñuy wax wa law tadumuuna kama kuntum fi inda xuduri la saafaxatkumul malaa'ika walakin yaa Hanzalata saatan fa saa lakin saatan fa saa xadis boobu loolu la ko tëje maa ngi amee téere boo xam ne noonu la tudd saatan fa saa temps en temps rek temps en temps yonent bi dafa ne ko law tëddu mu ne boo leen woon alaama kuntum fiya ci ni ngeen nekke woon ci man maanaam ngeen toog yëg yàlla bay jooy wala nga ziyaare ji sa sëriñ mu wax la ci yàlla ba ngay jooy léegi xaal boobu nag toppala ci tali bi toppale ci kër ga nga dëkke loolu nee na di nga yéega yéeg ba malaaka yi def la ay copain di wàcc di waxtaan ak yow te boobaa sa dund jeex ndax ku toog nag war a wax ak nit ñi di dem marché que doxi soxla malaaka kay ñoom ñoo mujjee doon se copain parce que malaaka yi xaal boobu lañ ne ñoom mënatuñ wàcc léegi nitu yàlla bu yéggee ci xaal boobu yéeg ci yéeg ci yàgg ci te wàccul malaaka yi ñoom ñoo koy def ay xarit léegi dañuy mujjee di waxtaan ak malaaka yi dama koy ñëw moo tax watul nitu yàlla ndax moom ci xaal boobu la ne mm-hmm. moom xaal la woo xam ne wàccul mukk yeneen bi ne ko kon nag nii ngeen di ñëwee ma waara leen ngeen jooy après dem seen kër waxtaanaat yeneen actualité ba xaal ba wàccaat ngeen ñëwaat fii jëlaat beneen xaal delluwaat mu nekk looloo jàmm jullit ci lay nekk nag ba dee yàlla teral ko waaye boo bëggoon continuer boobu xaal continuer boobu xaal boo watul ngay dem ba sa dund yàqu daanaka yow malaaka yi ngay amal affaire te dal ñu bari ndax ñiy def Euh, tabaarakallaahu tabattul ak ñi nga xam ne dañuy def euh, tasawuf ñu ci bari dañuy dem ba duñ mën a dëkkatee kenn ndax intimité boobu ñu am ak borom bi subhanahu wa taala loolu la sëriñ bi junj bu dul woon jàng yi ñuy ci lu dul yàlla dañuy dem bay janoog yàlla directement waaye nag saatan fa saa rek ala ma ne axlisil amala na nga sellal say jëf waalam nanga nga xam ne bi annahu naka luy mbir mbur moom yàlla xayrun ku fiir la de wala yarda d'accordul xuluba xol xol yi nga xam masiwu dañ ko rax ak moom yàlla nee na man ku fiir laa bu ma xo xol fekk fa keneen ku dul man damay jéggal borom bàyyi boo nag mu doon imaamu ratib wala sëriñ dëkk bi mais daal gëstu naa xol bi gis naa fa àdduna mbaa daraja mbaa ku ko xam mba leneen daal lu dul man dama kan jéggal naa xam nga léeg nit sax dina am fulla ba àgg ci bu la nit naree jox dara ba pare dagg ko ci digg bi wala daan yow diw bokkal ak diw nga nekk ko ah jégal wala dëgg xam nga kilifa goo xam ne mu weex tal ak bi jaaw nga jox ko benn kayitu téeméer wala ñaar téeméer nankaan bokkal xale bi am ñaar ñaari xale bi kii demal ngeen wecceeku ngeen séddoo ko mhm. xam nga góor gi mën na la baax na jégal naa ndax Euh, nit ma yenn yi nag moo koy weesole boppam mm. masa yàlla nag mm. yàlla nee na xol bu ma xool fekk keneen logé fa ku man wala ñeneen logé fa ñu dul man ma jégal borom ndax nag mënumaa bind xol ba pare di fa rac-rac looti kon yàlla dafa fiir wottu ko lépp looy defati na moom rek tax wa alam bi annahu xayrun mm-hmm. ku fiir la fala yarda al qulubu mashub wala tarda bu mu la neex bul d'accord antul faa ñu fekk la mu tiyaan ngay toppali xëyri keneen ku dul yàlla rafetul hmm. ñu bett la ngay topp keneen ku dul yàlla bu daalika loolu noonu sax yëstax sax war na ko rus somi mun ab sang aribu ku xelu ñu dab la ngay topp wala di jaamu keneen kudul yàlla nonu nit war na ko rus hmm. sëriñ bi indi fi tawxid ña tushriku walam yakku xaadiran ladayhi lada xalqil wujudi aribu ah attan nga bokkaale yàlla yow jaadu na loolu rafet na atashrikuhu ndax di nga bokkaale yàlla xayran ak keneen loolu rafet na te yow ñeneen ñi ngay bokkaale yàlla walam yakku nekkul loolu nga koy bokkaale xaadiran di teewe laday ladayhi fa yàlla fekkewul yàlla lada xalqil wujudi bi muy bind mbindeef yi fekkew ko aribu kenn maanaam yow li ngay bokkaaleeg yàlla waxuma ne moo la bind ndax alaaj Maalik moom waxatul loolu hypothèse boobu moom wax ko xam na ne leneen bindul lu dul yàlla hmm. mais au moins sax loolu boog yaroon na mu fekkee bila la yàllay bind pour mu jàppale ko <laughs> mais loolu ngay bokkaale yàlla moom ci boppam dañ ko bind yow fekkee woo bindam moom fekkewul sa bos léegi nga dem nag ba lépp neex nga naan yàlla ah wax dëgg yàlla yàgg diw la ñaaw na torop torop torop moo tax mu ne at tushriku euh, taw kii euh, sifaam bi taw biix la dalay yedd rus rusloo nga ma toropa ah alaaj maa ngay wax rusloo nga ma at tushriku ndax da ngay bokkaale yàlla xayran ak leneen keneen daf ko tanwin <clears throat> walam yekku maanaam xayran mooy tanwin gi yaamul istigraq leneen lu dul yàlla rek ci xayru lay dugg bu deen bu doon dafa ne al xayra beneen waay ngay firi mais xayran leneen rek moo xam xërëm la moo xam ay rab la mooxam xam la moo xam nit la moo xam sëriñ la moo xam ab yonent nga koy bokkaal wala malaaka wala ab xeer moom daal xayran la wax leneen est-ce que rafet na nga koy bokkaal ak leneen wala mu yëkkute nekkul xaadiran di teewe la day fa moom la daa xalqil wujudi bi muy bind mbinde fi aribu kenn kenn fekke ko yàllaa ko wax alquran la ma ashhadtuhum xalqa samawati wal ardi wala xalqa anfusihim wa ma kuntu muttaxida al mudillina aduda yàlla nee na teewaluwuma leen pour ngeen seede bi may bind asamaan ak suuf kenn fekkew d'ailleurs wala xalqa anfusihim bi ma leen di bind sax fekkew leen ko yéen keneen fekkew ko wa ma kuntu nekkuma muttaxidin di jàpp mudillina xërëm yii di réeralaate ak ñeneen ñi ngeen di jaamu ñu dul man adudan ma koy dimbali ko pour bind est-ce que rafet na gannaaw ba ma dajee lii yëpp ba pare ci yéen. Hmm. ngeen may bokkaale. <clears throat> ñaaw na torop. Hmm. sëriñ bi di continuer ne mane ne. amin baadi xalqi zaati. <clears throat> wal fiili rabbuna yumaathalu aafil mujrimina salibu ñaaw na torop. waw amin baadi xalqi zaati gannaaw. ndax gannaaw bi yàlla bindee jëmm yàlla moo bindee jëmm joo gis. ba ci mbaam mii di dem yàlla bind jëmmam yemul ci bind jëmm ji wal fi'li jëm bindaale itam li nga war a jëf ba ba ngay dee wallahu xalaqakum wa ma taamaluun yàlla nee na ni bindee nii ngeen mel nii ci seen jëmm yi noonu laa leen bindalaalee li ngeen nar a def ba ba ngay dee moo tax nu waay mel coobare yàlla bul yedd kenn yow daal waxal rek waaye nekk fa naan sax mel nii lu tax nga mel nii mooy ki ko bind mu mel noonu ci jëmmam moo ko bind itam mu mel noonu ci jëf waaw gannaaw nag borom bi bind sa jëmm bind say jëf est-ce que rafet na rabbuna suñu borom yu salu ñu koy niralal ak salibu kurwa rafet na ñu naan yàllaa ngi nii croix baa ngi nii yàlla la yaa ngi nii yàllaa ngi na te mu bind jëmm ji bind jëf ji ah loolu ñaaw na trop ñaaw na ñaaw na ñaaw na gab bi sox sore bu doon ci politique da leader sàngam moo ma neex wala leader sangam wala leader boo waxee wala rek yemale mu ngi nuru hmm. mais jaadu na parce que ñi ñëpp ay candidat lañ <coughs> yaay def sa choix xool ki nga bëgg waaye dëgg-dëgg mag mu tol ni yàlla nga teg ko nii teg croix ci wet gi ne yàlla jël seen soxla wax ko croix bi ñaaw na trop moo tax na ne yumaasalu ndax war nañoo niroleel afil mujrimina kii jéggal tooñkat yi ak salibu croix rafetul ala ma ne axlis axsinin ah amala rafetal sa jëf ji rafetalal say jëf waalam nga xam ne bii bi annama képp koo xam ne képp koo xam ne mutiun aji topp yàlla nga bii ànd ak rafetal jëf yi ak sellal ko wala boog lam yëti andiwul bii sellal gi ak rafetal gi fo laxubu day fo ah gis nga juli këpp këpp këpp ne salaamaaleykum sa bopp nga doon nax hmm. waaw sa bopp nga doon nax waaye yàlla dañ koy jaamu ci rafetal ndax yeyoo na ko hmm. mas ngaa gis ku añ ku añ ci benn minute manul nekk waaw añ bii nga xam ne nii boo ko profité woon sax sëkk hmm. ah waaw léegi añ boobu nga xam ne boo ko teewluwul doo xam looy def ndax da ngay sëkk waaw yàlla mii nga fexe daal di ko julli këpp këppal dem toogi na le rafetul na nga am teggin ndax jëli sumalikin lam yakun mutaaddiban taridun dalilun saagirun wa jiw yaa ngi toog ak sa borom jëli sumalikin ku toog buur nag dem palais de la république ñu recevoir la nga ñàkk looy def ni nga toog ak président jekki-jekki nga jug jug mu lay xool de nga dem ci benn photo xool ko xool ko xool ko raay ko ba yàgg ñëwaat toog ba yàgg nekk président may ma demaat ci beneen fleur euh, lu ne nga dugg ci ñëwaat toog ba yàgg nga ne ko président may ma dugg ci benn pantre génnaat xam nga ragal naa ne non seulement audience bi du yegg mais doo ñibbi sa kër da ñàkk teggeen googu ku ka amee ci euh, pays bu mel noonu mm-hmm. doo ñibbi waaw te buur boobu nga ormal nga xam boo toogee moom sax doo ko xool jaamu yàlla la waaw kon yàlla mi nga janool moom noo ko war a def moo tax a ne jëli sumalikin ku toog ak buur lam yakun te nekkul mu te addiban di tegginu du ko jig ndax euh, zali taridun dañ koy dàq hmm. dinañ rompre audience bi mais du yem ci loolu zalilun dañ lay toroxal ak génn ci biti génnal hmm. saaxirun zalilun dañ lay toroxal saaxirun dañ lay tuutal ah affaire yu mel ni wax la yoo xam ne ni moo nga ko bañ a dégg hmm. bu fa yemee nag mu baax waaye boo watul wax a dañ lay yiir hmm. dañ lay tëji maanaam pare boobu boo fa génnee doo ñibbi sa kër <laughs> doo ñibbi sa kër parce que koo ñàkk teggin ëpp na hmm. waa massa yàlla subhaanahu wa taala hmm. bari na nitu nit ñu doon wuti yàlla ñàkk teggin rek moo tax ñu dàqaleen ci xadaram ala kon raqibin mawla na fuklu sa borom foo toll Euh, nangay ngay fuklu sa to sa borom foo toll jàppane mu ngi janook yow almuhaymini aji settantal ji jaamam ba pare seydi laa wax sama sang man cheikh xaj malik ak rëy alhaj malik ku mu tudde sang rëy nga mm-hmm. waaye moom mooy sangam fa nicma aka baax mutiun kuy topp boromam raqubu kuy fuklu lil xabiiri ci yàlla mi xam lu ne yàlla mom boo ko bàyyiwul xel moom moom moom moom tàggoowul ak yow aw adduna bii nga topp nii bàyyi yàlla jar na ko yonent bi moo wax benn xadis ne noppalu leen adduna bii nii fa inna sururaha yaudu azaban fa inna xalaalaha euh, xisaabun wa xaraamuha iqaabun waaw adduna moom dara dara dara maanaam dara viddul yonent bi nee na yow mi ñu embauché ngay liggéey taloo dara di liggéey boo bu ñu waxee nga ne dama bëgg lu may jox sama njaboot mu doon lu lew nga koy liggéey ba di ko am ci anam bu lew yonent bi nee na boo liggéeyee ci anam bu lew ba dee yàlla dina la teg dërëm bu ne mu laaj la ko li ci dagan dañ koy régler am maanaam ki ne du liggéey dama koy lijjanti lu ko romba mu fel yóbbu <laughs> yonent bi nee na kooku moom xaabun dañ koy mbuba nduba nduba yu metti la yonent bi nee na àdduna lu la fi neex rek problème lay doon fële ndax mooy contraire àllaaxira lii neex àdduna mooy naxari àllaaxira la fay neex foofu àllaaxira mooy naxari fii ci àdduna gisoo koor ni mel mm. neexul de waaye teraanga ju rëy la foofu koor li muy metti metti na mu neexee àllaaxira noonu la moo ko raw alaaj mbaay ne waaw dëkk boo xam ne yi fi neex problème la lay jural fële bàyyi ko fa in tasali dunya boo ma laajoon àdduna dama lay wax ne fa inna sururaha ay mbégteem yi fi neex yaawdu dina mujjee doon azaban ay dumay ëllëg xam nga lii kay yettaqiyi war na koo wattu adibu ku ku xellu kuñ yar fa in tasali dunya boo may laaj àdduna fa inna umuraha maa ngi lay yëgal ne mbiram yëpp yëpp yëpp àdduna daal fi nga juddoo ba fi ngay màggee ba fi ngay màggetee ba fi ñu naan dee nga ka adraasi axlaamin dafa mel ni gént rek gént gu jaxasoo banat dafay commencé rek day feeñ rek wataxibu mu échappé waaw xam nga loolu maga la koy wax mag mi am quatre vingt quinze ans ba ñu naan am na téeméeri at xam nga bi mu am téeméeri yëgu yëgu ko moom sët yi ñoo naan am na téeméeri ah maam am na téeméeri waaye moom boo ko woon nag maam yow comme am nga téeméeri at tënkal ma àdduna bi fi nga jaar yëpp mu looy wax li ngay wax sax xaw ma ko <laughs> moom ak lim xam nga ki am téeméer waroon na am expérience mais xamatul dara ci li ngay wax kon adduna dafa mel ni léppam daal ay gént la mooy ku tëddoon te xajaraama saaxo daan wax ne boo tëddee gént jun am am ay junni wala ay million mm. na nga góorgóorlu consommé ko bala ngaa yeewu ndax yëg nga ne boo yeewoo mu jeex da ko consommé jënd ci oto jënd ci kii féexlu ci lu ne nga def ko ci daal bala ngaa yeew mais bis booy yeewu fa la teraanga ji yem adduna nag mooy loolu loo fi mën a am yaa ngi ci ay nelaw bul yeewu de loo yeewu rek xam ne amoo ko woon mm-hmm. dunia booy laaj adduna fay na umuraha mbiram yëpp kadrasi ahlaamin dafa mel ni jaxasooy génte badat dafa feeñ rek wata riibu mu échappé fa une tas alit booy laaj adduna bul sonn fa inna xalaalaha li fi lew nga xam ne yaa ko liggéey ba mu lew la domm xisaabun dañ la koy réglé ah déet waay waaw li lew lañ lay rek réglé wa xabsun attan la cee tëj sax nag waaw parce que ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy audité xam nga di nga dem ba tiit ci sa bopp waaye nag wal xaraam yi ci araam moom ah yooyu moom jarul wax uqubu ay duma la incha musa fa in tasali dunya booy laaj àdduna fa inna wazaanaha poiwam poids bi nga bëgg laaj yonent bi nee na law tasinu dunya inda allahi janaha ba'udatin ma suqiya alkaafiru minha sharbata ma yonent bi nee na àdduna bi ko yàlla bindee ñàkk mu ñàkk solo tax na moom yàlla xool na ko ba yàgg jéppi ko mais daf ko daf ko daf ko boo jëloon benn yoo bu romb rek nga jël ko dag yoo ku ne xam ne diisul hmm. nga tegu nga nga daggaat nag wenn laaf wi wenn laaf yow boobu ñu dagg yëg nga ne moo ëpp poids ca ca yàlla àdduna eh. àdduna woyof na de kon àdduna woyof na torop torop ca yàlla laa wax ndax xam nga bu dee ci ñun moom tolul noonu ndekete kon nit moo ëpp doole àdduna hmm. ndekete même même même yoo sax yoo sax moo ëpp valeur àdduna parce que yow benn laaf bi laa wax benn laaf waxuma jëmmi yoo yëpp mais benn laaf bi boo tegoon àdduna ci benn balance ca yàlla jël laafu yoo boobu teg ci balance laafu yoo bi moo koy gën a diis ca yàlla xaw ma nag ci ñun ñun vraiment diis na ci ñun nag ne bu yàlla pesé woon àdduna mu gën a diis laafu yoo dina fi iñaane yéefar benn kaasu ndox kon ku ko weddi du fa naan du fi naan benn kaasu la mm-hmm. mais bi mu xoolee loolu gën ko dis dane ah garaawul bàyyil ma bàyyi leen ñu féexlu bu ko defee samay nit ëllëg ma teral moom la sëriñ bi woy ne fa in tas ali dunia booy laaj àdduna fa inna wazaanaha poids bi axafu moo gën a woyof janaaxan ci laaf lil baxuudi ci yoo xalubu buñ dagg bu dog laafu yoo bu dog teg ko moo gën a dis ca yàlla àdduna waaye li jar naa yàq der fa in tasali dunya sëriñ bi ne booy laajaat àdduna fa inna lazizaha yi fi neex yëpp yi nga yi nga xalaat ne neex na fi sax en réalité neex gi sax du lépp de ndax masubu bu dañ koo jaxaseek bi durrin ci lor luñ na neex na rek avant nga ciy jot xaw nga de boo yàggee ci neex gi mu faf na xarit hmm. hmm? yow poids bi plat yëg nga ne plat bi nga gën a bëgg di ko lekk di ko lekk laata nga kay lekk daj nga ci lu ne. Hmm. nga dépense togg nga lu ne lakk nga ci sax xëy na hmm. mais buñ la ko tegalee bu la xeeñee rek nga bëgg nga commencé lekk muy neex di neex waaye boo bàyyiwul da ngay dem ba yàgg du loo xamante lu mu lay xeeñ nga naan mais affaire bi xaa dafa rax fekk raxul neex-neex gaa jiix boo bàyyiwul nag yow xam nga fu la jëme ci fër. nga nga dem fër bi ci boppam moo gën a metti neexaayu la nga doon lekk te fër bi feebar la nga jékkee sa bët yëpp dugg naan waaw lu la dal lu la dal fekk toppoon lu la neex moo la ko teg gannaaw àdduna yi fi neex ci boppam dafa raxaale yi naxari mhm. xanaa kon moom neexatul te yi mhm. neex sax bariwul moo tax sëriñ bi ne masuubun dañ koo jaxaseek bi durin ci lor wa bu sin ak tartar wal balaa ak métit da ngay dégg ñu naan alal dafa neex alal li muy neex neex neex boo ko amee te lewul sa sa xel du tranquille di nga tabax kër gu rafet tëdd ci ñëpp nelaw seen kër yow nga toog minute bu jot nga tëb xam nga ne nekkoo ci jàmm minute bu jot nga tëb naan kookal la kenn kenn du la wuyu ndax kenn newu fi yow rek yaa fi ne mais ku sa xel di traqué doo noppaloote gannaaw yi fi neex nag coono la àndal ma say naqari kon àdduna mi mel nii ci juróomi fa intas ali dunya yi kon fa kay fa yakunu na lay nekkee alfarxu mbégte yow àdduna noo fi mën a bége xam nga teraanga lu mu neex neex neex am na benn sécurité boo war a am ba pare bala ngaa fecc mooy xam ne du jeexati waaye teraanga boo xamee ne li muy neex neex mën naa dog jaratul a bég hmm. ndax xamoo kañ la buum gi di dog fa kayfa naka lay nekke fa kayfa yakunu farxu naka la mbégte di amee wal mawtu te dee manzarun moo ñuy xaar wa baadu wa min baadu ci gannaaw de waalu rada ci tàngay ci tàngay alkande moo fa nekk wu kurubu ak ay fitna alaa fattaxidaa macbaran aabiran biha wala aamiran waalam bi annaka garibu kooku itam xadis la yonent bi nee na boo bëggee mujj ci àdduna doo toog rek bàyyi ko ne ah man bàyyi naa àdduna dama ko dëddu déedéet demal wuti ji àdduna ba téye ba pare nga dépensé ko ci yoonu yàlla mu doon sa benn moyen de transport bi lay yóbbu àjjana àdduna ku ne amul solo itam yëfër bit moo tax ñuy wax amul solo ci moom waaye jullit bi àdduna mooy la ci moom pour mu liggéey ci àllaaxiram ëllëg mhm. alaa ne fattaxida na nga ko jàppee maxbaran muy pon pon pon boo xam ne abiran dangay romb biha ci moom dañ wax ne nag pont foo ko gis pon fépp foo gis ñu pont ko fu naqare jàll lay doon mbaa foo xam ne ku fa jaar gaañu ñu jël tali bi teg ci kawam mhm. léegi yow man nga ji jàll ba jàll ci beneen wàll ga te doo yëg mettitu foofu àdduna mhm. noonu la mel li fi nekk yëpp dara baaxu ci waaye jëlal alal ji nga am ak man-man yi ak xam-xam bi def ko muy pon nga traversé ko dem ja àjjana boobaa doo xam yow mettitu àdduna mhm. wala amiran waaye nag bul ko dundal xam nga ñëw ba ci digg pont wàcc fa sa feer ak ciment ñu ne looy def nga ne néeg laa fi bëgg taba ci biir kaw pont bi do doo yeggal tabax bi du yegg te kaso ba nga jëm ndax foofu doonul dëkkukaay mhm. fu fu ñëpp di jaar mhm. doonul dëkkukaay wa alam nga xam ne bi annaka yow xaribu dangaa tumuranke mhm. euh, ci sa borom nga jëm adduna ci gannaaw waxoon na la ne mu ngi mel ni maire bi nga xam ne dafa euh, dem ba màgget ba pare dem uti ay koket ak ay melokaan fexe di dem ci góor ñi <laughs> Sey xaj Hadj Malick indiwaat na àdduna ci beneen beneen beneen jigéen jigéen joo xam ne saay-saay la yoon ci musal jigéen joo xam ne saay-saay la ba pare rafet lool mais day dem ci dëkk bi sol yi gën a rafet xeeñ li gën a neex ba góor ñi ñu sàggan ñi topp ko mu ne leen bismillah kañ dem kër ga bu ñu demee kër ga ba mu fexe ba dugal la ci néeg boo xam ne fa am pot bu duggee day tëj bunte bi nala la eh, àggal fële ci biir ma ñëw boo ñëwee eh, ndekete ndaw si saay-saay la jaase la yore boo xam ne nii boo ko wanee gannaaw rek mu gor la ko hmm. nga kaddi kaddi ba sedd mu puus la muur la foofu soluwaat génnaat xoolaat beneen góor ba fexe ba convaincre la dugalaat la bu ko defee jaarale la fi mu jaarale waa ju jëkk ja dugalaat la foofu génnaat xam nga kii am pexem dina dina yéex a feeñ ndax ñi mu jot a rey mënuñu dellu si ne kii nii la mel <laughs> ñu ngi leen wër rek mais xamuñ fu ñu ne te ñi muy gis nii xamuñu ne kii nii la mel ñu mm-hmm. ne lay def àdduna mag ñi fi jaaroon ñëpp dugal leen du ko te ñooñu mënuñu dellu si ne bàyyi leen kii moo tax mu ne ka fajiratin tas'a rijalan daatuhumu ila baytiha wa hiya riqaaba xaluubu si xaj maayig nee na àdduna ka fajiratin dafa mel ni jigéen ju saay-saay tas'a muy dox rijalan ci góor ñi daatuhumu di leen woo ila baytiha ci néegam waaye kaay leen waaye man man awma jëkkër bu ko defee góor ñu sàggan ñu topp ko te wax ya moom xalu bu day dog riqaaba ay ay bat hmm. ku ñëw ba mu dugal la ci néeg bi rek dog sa baat dugal la ci ruq bi génnaat yàlla ci yàlla mooy wor yi àdduna yi wor xam nga ne misaal bi yéeme na yow mi wut àdduna nag alaaj may nee ma lay yëgal na nga ndànku da mhm. ngay naan te doo màndi mhm. naan goodul màndi nag jarul a rey sa bopp mhm. ma bi maa il baxri man qad yarumuha wa xullatu tasdaadu wa huwa sharubu mu ne man xat yarumuha kuy sàkku àdduna képp kuy sàkku àdduna kachaari bi maa il baxri moo kuy naan ndoxum géeje yem dangay naana naan te fa xullatu ak maram te zaadu da yokku wawa cheru te mu ngi naan yow xam nga koy naan te sa mar di yokku sa biir ay toj rek lan la bëgg a wax képp koo gis muy ut àdduna yonent bi nee na nahmaani laa yashmaani ñaar ñu fuqale ñii duñu mandi ba faw ba faw dañuy naan rek du duñu duñu duñu suur ba faw te dañuy lekk rek kan mu ne taalibu dunya kuy wut àdduna yëg nga ne commerçant mas nga gis commerçant buy jaay ba yàgg ne doy na li ma am doy na sëg nag déedéet moom koy bis bu jot danaan bitig bi laa gën a bëgg yokk rek wala dama bëgg sax comme bitig bii dafa xat dama bëgg ubbi beneen entreprise fële wala dama bëgg moom ci bëgg a bëggal yooyu lay ne ba dee même bu tolloo ci sukuraat sax danaan ne leen xale yi dañ continuer liggéey bi te fonk moom du arrêté mukk mhm. moom ci liggéey rek lay nekk yonent bi neen taalibu dunya du jeexal mukk ak kan mu ne wa taalibul ilmi ko ak kuy sàkku xam gi nga kuy xam juróom-ñaari at lay dal mais mënu la wax kañ lay génn daara ja chaque jour mu ngi ut téere bu mu xamagul chaque jour mu ngi lijjante xam-xam bu mu xamagul day jànga di jàng ba lalu deewam sax bu ca nekkoon ne jottali ma téere boobu yow day xool ba téere bi wadd taalibu dunia wa taalibul ilmi duñu duñu duñu suur mukk mukk mukk yàlla ñu yàlla mboole ci ñaareel bi moo tax képp koo xam muy jàngkat euh, ci jàngalay nekk ak jàngale di ci jàng di jàng bañ ne góor gi noppul na waaye du arrêté mukk masoo dégg kon mukk naan lan jamono jamay jàng danga déedéet jamono jamay jàng du am ci jàng rek ngay nekk ku jàng diine nag lay wax waaye xam nga kuy jàng science politique ak géopolitique yooyu koy jàng moom ay jamono la waaye kiy jàng xam-xamu yàlla moom ca lay ne rek boo waxee ñu ne ah ñun kat ay daara lañ ci daara ji lañ ne te moom mi koy wax am nay sët mhm. kon du jeex àdduna qasirun yaraaha alxaafiluuna tawilatan wa ma hiya illa lamxatun wa xurubu qasirun àdduna lu gàtt la waaye malheureusement yaraaxaa dina ko gis na ñi sàggan ci yàlla tawilatan ne dafa yàgg gis nga nit boo bu yàlla nekkul ci sa xol da ngay toog di projeté ay décennie ci kanam naan fii ak fanweeri at war naa def nangam fek ak ñeent fukki war naa def nangam te doo xam ne ginnaaw suba mën na la fi bañ a fekk hmm? benn nitu yàlla bu yàlla may xam-xam bu kawe nee na dafa toog ak benn waay mu koy wax projet boo xam ne ni fii ak fukki at la te moom yàlla xamal na ko ne kii juróom-ñaari fan ak dese. xam nga li kii xam bu ko kii xamoon projet bi dina ko arrêté te dem te ci xalwa moom. <laughs> waaye du ko yëg xasirun lu gàtt la waaye yaraaxa dina ko jàppe dina ko xoole xaafilu na ñu sàggan ñi tawilatan mu gudd wa maa te nekkul moom àdduna illaa lamxatun lu benn gendiku rek euh, wa xurubu akuk so axi yow sama mbokk mi fecca hit na nga farlu kon fil yow mi ci tey hmm. ñetti temps moo am le passé le futur ak le présent hmm. euh, le passé fekku la fi le futur xamoo ndax dina la fi fekk loola dese kon tey le présent bi si xaj maay nee na moom nga am tey jii la alxemes fexeel ba alxemes jii moom mooy doon sa programme waaye yi nga passé yëpp xamoo ci loo nekkoon li ñëw xamoo ndax dina fi fekk ak yi yow soo mbokk faj tahit na nga farlu fil yow mi ci bésu tey ndax wal am su demb faa itun faat na la te wu fii xadinaa suñu ëllëg yaadal wanaa yow mu doyati mi la ko yóbbu kumpa la xamoo ndax dina la fekk mm-hmm. comme xamoo dina la fekk tey nga am góorgóorlul ci tey àdduna bi ko yàlla bindee teg maquette bi nii bi ko nit ki bi bi ñu ko gëstoo lu tuuti la ba malaaka yi naan waaye yàlla xanaa li yàggul li li li li jarul nga koy bind lu mu tuut lu tuuti lii mu ne pourtant de monde la bu ma war a bind diir bay gàtt rek waaye dinaa ko bind maanaam biñ ko bindee teg maquette bi te dara jugeegu ci dafa tuuti woon te tuuti googu yow nit ki may déglu ay siècle ay siècle siècle passé na ci ngay soog a juddu yow hmm. xanaa kay yow lu tuuti loolu nga xam bi dara jugeegul lu tuuti la te yow ci lu tuuti loolu ay siècle jaar na ci ngay soog a juddu war ngaa xam ne li ci des gën naa tuuti hmm. moo sëriñ bi ne xalilu lu néew la minha te te baqaa des na minha ci moom alxalilu lu gën a gën a néew la bi dañ koo euh, ten ten euh, maanaam dañ koo tankiir beneen xalil bi dañ koo taarif moo lay wan ne ñaari bokkuñu bee moo gën a tuuti al xalil lu gën a gën a tuuti kon loo xam ne dafa tuuti woon ñu jëlewaat ci lu rëy mu desaat lu gën a tuuti sëriñ bi ne walaw dara bu xamoon maxabbata ak mujjëm man raamaha ke kay bu xamoon fi muy mujje lay uwu dina delluwat àdduna képp ku koy wut fa nga jëm du da fenn fu dul safara yàlla ci yàlla kon boo xamoon fa ngay mujje ji dinga nga teel a dellu ñu daw bi ngay am ay tànk ah fan nga jëm mu ne ila naari ila naari maa kullil muhibbi masiruha lidalika anha alxaafiruuna harubu waa waajooju bu xamoon fi mu fi ko fi ka àdduna jëmee yafirru dina daw ilal mawlaa ci yàlla day daw dem ci yàlla kama qaala rabbuna ni ko borom bi waxee yàlla moo ne fa firru ilallahi inni lakum minhu mu mubin baat boobu la ne fa firru daw leen jëm ilallahi ci yàlla xaribi mu jege mi ajibu wuy leen ko ndax àdduna kat masiru ak mu jëm ilal naari safara la maanaam képp jarul jarul sorel mm-hmm. gis nga wax ji jarul a sorel képp kuy wut àdduna yoon la sóobu yoon wa nag terminus ba xam nga nu mu tudd mm. safara moo tax mu ne ilan naar yi ci safara ma kullil muhibbi ànd ak ay soppeem yépp masiruwaa mooy mu jëm ah àdduna daal dafa mel ni benn benn benn benn benn bis boo xam ne oto bis car bis boo xam ne mu ngi naan duggaleen duggaleen duggaleen moom nag mooy chauffeur bi su paree gis nga bu duggee bañ tëj bunt yi amul fii laay wàcc de amul arrêt bi laa jëm déedéet mais may ma yaa ngi passé fii déedéet directement safara la jëm moom masiruha li dalika looloo tax alaqiluna ñi am xel dëgg-dëgg xëru bu dañuy daw an ci moom dañ koy daw bul bul dugg ci bis bi ndax bis bi mën nga ci dugg mais mën mën a topp ci biti mënoo nekk ah, may ma arrêt bi fi laay wàcc déedéet biir jahannam rek atarda waaw ndax yow loolu rafet na ndax loolu rafet na yow ab xarit boo xam ne yow daf la dafa bàyyi ñëpp tànn la yow nga ñàkk looy def ne danga koy dugal safara te mu bàyyi fi oto yëpp dugg sa oto ñaaw na torop atarda xabiban yudxilu naara xibbahu li wo wa jahlin inna daala tabiu atarda ndax da ngay kontaan da ngay d'accord ci xabiban benn soppe boo xam ne yudxilu naara mu ngi dugal safara xibboo soppe ah yow di dama la bëgg ah yow kay nañ dem yow dama la bëgg yow lañ dañ dem di ànd ak yow ba dugal la jahannam mbëggeel gi dëgg la yow nag nga kon d'accord ci ànd ak kooku li xumqin ngir ndof wa jëlin ak riir loolu bu ko nangu inna zaaka loolu la tabi bu alkande la bul ko nangu nag yàlla musal ci nangu gi ñaar nag maa ngi lay yëgal ne man Cheikh Al Hadj Malick foo leen foo leen toppee ñoom ñoom ñoom ñaar ci ñoo lay alak ñoom ñaar te ñoom ñaar ñoom ñu ngi ci sa jëmm yi hmm. mata toxte xibbi ajwa fayka buxaahuma ataalaka aarun musbilun wa maibu mata toxti foofi joxe xibbi yow sopp bi ajwa fayka sa ñaari biir yi sa ñaari biir yi foo leen joxe buxaahuma seen bëgg-bëgg liñ bëgg yépp boo leen ko joxee ñaari biir yi mooy ñaari yi ngay nëb biir xam mas ngaa gis kuy dox di wane biiram <laughs> ah? beneen bi mooy bi ci suuf ñaari yooyu yëpp dañ leen di nëbb Seydi Hajj Maalik nee na foo leen joxee nag liñ bëgg yëpp ci plaisir hmm. ataalaka dina dikkal aarun gàcce goo xam musbilun bu sax la wa maibu ak ay gàcce hmm. bari nag ko dugg kaso topp ñaaram yooyu ñoo ko ci dugal hmm. xaalis bu xaalis bu bari nga sàcce ko ngir lekk lu neex ak xale boo gis xale jigéen boo gis topp ko hmm. dañ lay tëj ah janaaxay jan wal xaw xawfi tir naxwa maliki kafaaka rada baaril anaami xasibu sëriñ bi nee na tir yow nag boo bëggee naaw jëm ci xadara yàlla xam nga yàlla sori na lool dañuy naaw jëm ci moom booy naaw nag ñaari laaf ngay naawe ngir nga mën a équilibre ndax kenn mënta naawe ci benn laaf hmm. ñaari laaf ngay naawee pour jëm ci xadra yàlla ban la mu ne laaf bu njëkk bi ragal la tudda ragal yàlla ba foog ne bu yàlla doon yóbbu kenn rek safara yow lay doon hmm. beneen laaf bi mooy wóolu yàlla euh, yaakaar yàlla ba foog ne buñ ñëwoon aj aj ajjana daal ñaari nit fay dugg nga ne man la ak yonent yàlla Muhammad xam nga am nga fulla waa ji day man ne xam nga ñun waa ajjana yàlla dafa dogal ma nekk ah, am nga fula de ñun waa àjjana de jullit bu ne loolu la war di wax a ah, fa nga jëm fa nga jëm rafetal njort nag ndax jullit yi ñoo moom àjjana jullit yi nga bokk mm-hmm. moo tax mu ne tir na nga naaw naxwa maliki ci jëm ci sama wàllu borom janaa xay ci ñaari laaf ban rajan yaakaar wal xaw fi ak ragal kafaaka doy na la nag rada <clears throat> ak texe Euh, maanaam kafaaka den radaa maanaam tiitaange min jaani bi xaw fi ne baaril anaami dëgg dëgg dëgg boroomu borom borom borom mbindeef yi xasibu mooy rekle mm. waaye min jaani bi euh, raja kafaaka itam raja baaril anaami xasibu maanaam gis nga ki ragal yàlla mm. tiitaange gi mu war njëkk a am mooy yàlla du yónnee du yàpple moom ci boppam mooy régler nit bi nit ki juddoo ba di muy faatoo doyul tiitaange xam nga looy tiit mooy dara dafa échappé wul kon fu la bëgg épingle dina ko yomb mm. loolu mooy kafaaka radabaari anam waaye min jaani bil am ni e, moo di benn arab yi la mu waxoon yonent dafa ñëw ci yonent bi ne man yu walli bi xisaabi naas yowmal qiyaamati yowmal qiyaamati bii ngay faral di wax ci diine jii ne dañuy régler nit ñi lu waay def lu waay wax dama lay laaj ëllëg kan mooy régler nit ñi mu ne yàlla mu ne ko bi ci boppam moom ci boppam mooy régler boppam jaam yi mu ne ko waaw waaw waa ji ree ba daanu ci suuf yeneen bi ne ko looy rek dami ma tadxak mu ne innal karima ida qadara afa ku baax ku mel ni yàlla te am kartan même bu jekkoo sax day baale ree bàyyi waa ji dem naka la waa ji dég dég euh, euh, euh, dëddu mu ne mu ne saxaaba yu toog moom faqihal araab yi waa ji moo dégg hmm. ah wax na dëgg parce que mag mu toll ni yàlla subhaanahu wa taala kartanam goog mbaaxam gu rëy gi la lay toppee benn jàmbu doyadi di la toppe yu sew yooyu yooyu doo ko def mbaaxam ëppale loolu <laughs> ah kon yëg ne yàllaay ram maanaam mooy mooy mooy mooy rek la jaam rek ëllëg mën na doon mbégte de même que yëg ne ne yàlla mooy rek la jaam mën na doon euh, tiitaange ëllëg moo tax yàlla na yàlla rek la ñu ci mbaaxam ak yiwam ba ëllëg ñu am ci fa tabarakallahu lu weesu suñu njort ci mbaax wax dëgg yàlla julit ak lu mën a xew àjjana la jëm ak lu mën a xew nag léegi nag yow yaay fexe rafetal jëmin wi te wàññi àq yi nga am ak nit ñi parce que képp koo gis mu traqué nit ñi naan bu ñu wattul duñ dem àjjana yow boo wattul yaa dem àjjana yow <laughs> yaa ngi bëgg rey nit bu ko defee rafetalal njort ragalal nag ba tiit mm-hmm. waaye itam tabaarakallaahu yaakaaral ba fook ne ëllëg yow rek yaay dem àjjana yàlla inchaa allahu danay rek la jaam ci njortam lu rafet ana inda zanni abdi bii fal yadunna bi ma sha maa ngi ci njortal sama jàmm na njorte ci man lu ko sopp bu dee lu baax dara ka fa fekk ndax am naa la am naa ko hmm. bu dee safaan ba nag daf comme jàppul na jàppul ne moom jàmm bi loolu rek laa am bu ñëwee fekk fa kon del jort lu baax hmm. yàlla na yàlla xiir ci loolu bi max di fadli wa judi wasalaamu aleykum wa rahmatullah